Idrissa Seck nee na. waaw lacrymogène yi nga xam ne moom la makki Sall dugal ci réew mi. Ah. nekkul ay lacrymogène dafa rax. Ah. nee na li tax mu rax nag moom xam na ko. Ah. te moom jàng na li nga xam ne mooy euh, physique chimie. nee na Macky Sall. actuellement Nations Unies daf ko war a jàpp daal koy jàppee kon koo xam ne mu ngi def ay actes yoo xam ne dañ koy tere ñu seet Idrissa Seck jàkkaarloog askan bi ba mu génnee ba pare lu tax mu wax ne askan bi Macky Sall na arrêté lacrymogène yi parce que dafa rax tey spécial lacrymogène ak Idrissa Seck. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ndey penda ngi nii taxaw duma bàyyi ma wax lu dëgg dafa jënd ay mouchoir ba fu mu ne nii mouchoir manqué soo <coughs> si koñ bi loo xam ne dafay faj soj ndey penda def na ko muy guddi ak bëccëg ba ma génnee kaso ba tey wóor na yàlla ak yonent bi bu fekkee ne président Macky Sall mu may déglu war nañoo nag wax dëgg yàlla nit ki boo ko sànnee lacrymogène ba pare nga tuuse ko ay meew ndax ndax ndax penda déet ndey penda déet yow fu mu ne ni desatoo benn yére moom lépp loo xam ne ndey penda amoon na ko ci yére ak musuwaar jox na ma ko ma ñandee ko may lancé appel bu yaatu di wax ne ki nga xam ne mooy président Nations Unies ak ki nga xam ne moom mooy Donald Trump uh-huh. que le président Macky Sall doit être arrêté plus rapidement ndax lacrymogène yi nga xam ne moom la Macky Sall di utiliser loolu ay yaaram kallaa la barki démb ba tey mënumaa lekk ci kër gi loo xam ne lu saf la jigéen ju mën góor a ngi nii defar na façon togg bu nekk pour jéem a faje ba soj bi dañ waaye Macky Sall li mu bëgg mooy indi ñu tuberculose buy rayee xam nga ay lacrymogène yoo xam ne dañ la koy sànni sa bët yi day soj sa bakkan soj sa nopp soj nday penda xam na ci dara barke démba ban ban ban supp nga togg suppu lan nga togg supp yel waaw def ci poobar ba mu saf pour ma mën a génne ñandaxat yi nekk sama kaw yóor bi xam nga arme yi nga xam ne moom lay utiliser baaxul parce que li mu jël mooy lii waa Palestine di daj ak Israël képp koo xam ne bi damay wax ni lu leer laay wax chauffeur policier bi doon dawal oto bi lacrymogène dafa jàpp bët bi ba mu jaawale yoon bi dem géej ak yoon bi dem kaso may interpellé waa CEDEAO di xamal waa CEDEAO que le président Macky Sall est un homme politique boo xam ne il faut tuer ses opposants parce que léegi mënu ma taxaw sax laase samay daal laajal ndey pend heure bii heure lekk la waruma leen wax loo xam ne day tee seen xel waaye ñaari potu ndaaw ñenn xet dama koy génne am na loo xam ne dafa ñaaw président Macky Sall mun nañu xeex ak moom mu bañ a utiliser ay armes chimiques ndax Israël ak Palestine lacrymogène yi nga xam ne moom nañuy utiliser moom la président Macky Sall di utiliser maa ngi soog a xam ne protocole d'accord bi am diggante Israël ak Sénégal bés bu ma nekkee président Israël day abal Sénégal ci biir réew mi